waaw léegi nag xam nga Sénégal moom léegi nëbbatuñ ko nëbbatuñu ko làqatuñu ko man maa waxoon ne réew mi dafa mel ne mbootaayu jeeg ab jeeg jiite ko man maa ko waxoon waaye loolu ma wax lu ko gën a nekk dëgg gisatuma ko mooy léegi réew mi réew clan la clan xam nga clan clan moo nekk ci réew mi nit dof saagawul kenn dafa wax ba dagg aw saaga lu doy te saaga wi sax boppam la ci jublu bi mu xëyee delluwaat fa mu ko waxee woon ne man kat maa ngi jéggulu ndax démb sama xol dafa tàng wax naa aw saaga jéggulu naa ko ñu toog lu mat semaine après bi mu jégguloo ñu fekk ko fa jàpp ko parce que da ngaa saaga dof ndey nag dugguma ci naan jam na diw yooyu parce que loolu moom version ñee laa dégg moom dégguma version waaye li ma gisal sama bopp sama bët mooy gis naa ko ci taxi gisaat ko ci yooni yooni yoon muy dagg ay saagay day jëmale ko ci kaw sénégalais yor ngànnaayam képp ku ma nangam danaa la dóor ngànnaay gii arme blanche loolu nag ñëpp gisanoo nañ ko kon lan moo may nit dof ñu jàpp ko tëj ci kaso bi lan moo may Dof Ndeye def même délit bi li Dof def ba romb délit ba moom mu continuer nekk ci mbedd mi di dox loolu nag jàpp naa ne nekkul lu dul par parloo kii ci sama làng la bokk téyal ma kee ci làngub diw la bokk rayal mu dee loolu nag bu amee dama ne la nikkatuñ ci réew mais ci mbootaayu jeeg lañ nekk a jeeg ju daje kenn ku ne di classe sa moroom ak di di teesante waaw loolu nag laa ko mën a gis man loolu nag sénégalais yëpp ñu ngi koy gis. dañ xam nag xool nag ba xam yéenay xool ba xam ndax am réew maanaam kër gu normal sax du doxe noonu kër boo yoree ñaari jabar kenn ki mool nga nopp ko lool dégg nga kenn ki ñaaw nga xaw koo jëppi lool boo bëggee féete kenn ki ba xam ba ñëpp xam ne yow da ngaa ko mool ki tas nga kër gi borom kër ci kër doo nga loo nopp nopp nopp nopp nopp nopp kenn ki boo ko wanee ba mu fés tas nga kër gi boo amoon ay doom jël kenn ki bëgg ko gënal ci kaw doom yi donte yaa jur nit ñi da gis problème yoo créé sa biir kër soo amoon ay ay surga walay rakk walay mag nga jël ngënale ngir wóor na la ñii ñoo la gënal ñii indi nga problème yàlla sax bu jëloon aw làng wala mu jël ab ab ab famille jël leen ne leen yéen sama takk leen ci kaw nit ñi doonte yàllaa ñu bind mais da nga gis beneen yeneen yeneen xeet yi ci des dal ci kaw yàlla contre ko Macky Sall nag loolu nga xam ne jigut kër jigutub dëkk jigut yàlla jigutub yonant bu ko jigee moom ma xam ne kon xamut Sénégal waaw defe naa ne nag fi problème nekk mooy ni ngay jële photo Amadou Sall teg ci photo nit dof dof ndey suñ ne laa dafa mucc rek sa xel day dem ci ne kon xëy na photo wee ko muccal te it Amadou yaakaar naa ne bu fekkee dafa bëgg a sol aw dàllam defaral baayam yaakaar naa waroon naa rusu solu dàll moom jëm kër dof ndey daan fa lay defaree ji réew mi fa lay jàppalee ji baayam waaw te damay wax ne ku sa yaay jël aw yoon nit ñi sopp ko ba amu ci ba amutum noonu ci réew mi sa baay jël aw aw yoon nit ñi bañ ko ba amutub soppe ci réew mi booy tànnu yoon tànnal sa yoonu yaay waaw waaw mayem mareem bu amee noonu ci réew mi bëriwut kaf ree bëgg jàmm mën a jaxasoog nit ñi mokk ko yóbbi Macky Sall bu amee soppee ci réew mi bëriwut soppe bu mu am da koy da koy fay rek moo tax mu nekk sab soppe waaye soppe bu mu fayut amu ko nan waxante dëgg koo dégg mu naan la président Macky Sall day tàllal ñi teg ci loxoom waaye nitug neen nii ko taxaw rek ne Macky neex na ma mosuma koo gis lu ko ko yóbbee ñàngal nappaate dooraate xuppaate comme nag Mariam mooy yaayam Macky baayam Macky moom ñàngal ak dóoree tax na amutub soppee ci réew mi Mariam baax tax na amutub noonu ci réew mi Amadou booy jëloo yoon jëlal sa yoonu yaay waaw waaye dóor naa ko ak ànd ak ñuy jëli jaasee ki xepp loolu baaxut ci yow te ëllëg dafa yàgg ndax sa bàyyee ngi nii ba muy toll ne yow xamul woon ne dana doon président Sénégal at yi nga am man naa am fii fanweeri at ci kanam am na leneen loo mën a doon loo xam ne bu fa taw daf ndey ñëwee yàqu waaw man nag Amadou jàmm rek laa koy ñaanal ndax xawuma ko dénkuma ko Sénégal dénkuma ko benn poste awma lu ma koy accuser awma ko awma lu ma koy corriger waaye mën naa ko joxum xel dégg nga en tant que taaw boo demee fii ci Mali dafa am ku ñuy wax Abdou Karim Kayta doomi Ibrahima Boubacar Kayta la ñu gën koo xam ci IBK baayam dafa nekk président mu di jël xaalis bi nekk ci dëkk yi di tasaare di foo li fi ko woon Mali sax garaawul mu tuutee ko doon xam ci population bi mu dem ba mu yàgg mu ëppal nag ñëw Mali nag woote defa tànn biir bi mu wootee tànn biir jël xaalis bu bari mayeeku baatare foofu xaalis di sànni xaalis bi jeunesse bi gis ko tàmbali dem ci internet bi gis photoom yi muy def di ko def ci bitim réew ak yëpp jeunesse bi révolté wu wàccee baayam maanaam tànn biir boobu bi ko wootee ba pare maanaam li rey baayam li wàccee baayam bam mu dee tey maanaam ginnaaw tànn biir googu laa amee comme que nag am na doomi président bu bokk boo xam ne dafa doon caaxaan ba daaneel baayam Amadou boo bëggee jàppale sa baay demal kër Youssou nduur wala kër Birane Ndour wala sa kër nawle yi nekk ci réew mi waaye di dem ci ay ay bërëb yoo xam ne ku la fa fekk maanaam du la naw te fii weere at mën nañu bëgg na nañ jox Amadou réew mi wala nañ jox Amadou ensemble bi ñu indi photo ne la yaa àndoon ak bandi wala yaa defoon nangam loolu xale da koy moytu te moom xale la man maa ko mag amagul xelum xelum tànn dëgg-dëgg amagu ko dëgg la léegi nag na bàyyi xel ci yooyu waaw Assane Diouf magistrat bi ko jàpp daa war a xaru ji loolu mooy wane ne laar dëgg la xamul dara ci li muy def waaw jàpp nit ci benn affaire rek atte ko ba tëj ko toogaat ba mu yàgg nga dajee waat ak vidéo ba woowaat ko di ko ci attewaat loolu mooy wane ne yow xamoo sax li ngay def waaw te dinañ ñéeg nag ba téye ko ci kaso bi boo moytuwul fii ne duñ duñ génn pardonné wu ko xam ne juum nañ dañ fiy nekk di jéem a wëriwaat luñ ko jàpp mooy réew mi moom ak loo ci mën a dégg rek mooy dafa nekkatu ci yoon parce que man dama am sama rak bi affaire ma affaire ma marché yi amee ma dem ñu ne ma dañ koo jàpp ma toog ba ay 17 heures ma dem ci bureau Baara Sankaré di ko seet ma ne ko dañoo jàpp sama rak man booba maa ngi jàpp ne xam nga Macky Sall moo fi indi jàpp nit ci manifestation defeere ko hmm. waaw moo ko fi indi de Idrissa Seck mii ak hmm. ñoom Déthié Fall ak ñoom na Bocoum ñoom lañ jàppoon bis bi ñuy def événement mars yi événement bi ñuy wate parrainage bi parrainage bi ñu koy wate ñoom ñëpp dañ leen jàppoon manifestation politique sen bu ñu ci jàppal amut mais da ngay yendu bu manifestation bi jeexee ba ñëpp dem ñu bàyyi la nga ñibbi Macky Sall nag léegi moo ci boolee moom déféré la au lieu mu yóbbu la Franck Ganaadari yóbbuwaale instruction pour nga am six mois ci kaso ma dem di ko jëli defe ne maanaam comme ngoon bu jotee rek dañ koy bàyyi mun ñu ne ma kii dañ koy téye ma ne pour lan ñu ne ma non dañ koy téye daal parce que dafa bokk ci manifestation ma ne ko nit kuy manifester ngeen bëgg koo jàpp nii tëj ko defeere mu ne waaw ma ne ko ah baax na yóbbu leen waaye mu ne ma non dañ koy téye boo lii ma ne ko sa ma dem ci booy bi di ko may xaalis ak di ko xool ne ko ñëwoon naa fi booy bi xam nga lu ma wax xam nga ñoom ñi ngi yaakaar ne buñ ko tëjee fitnaal ko booy bi day day day ragal bàyyi xam booy bi ci kanamu police yi xam nga lu ma nit ñi nañ génn sëñ bi boo génnee defal déclaration nga wax gars yi ñu génn ñu liñ ci réew mi dafay yomb te mi ngi biir kaso mi ngi ci biir gis bi taxaw xam nga loolu da lay wan ne ñii yow li nga yaakaar ak li nekk bokkul mooy da nga foog ne booy yi boo am nañ problème